برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان

ñaan yàlla mu ñaanal ko ñaanal ay magam yu jigéen ak ay rakam ñaanal ñu ñun ñëpp ñu ne mu ngi wax ci lambe ni ñu yaay soxna Faba Amal Kan ñu ngi gërëm ñu ngi sant saa su ko wax dana lay yóbbaale ak ko waaye moom ñu dafay dégg as ñu gërëm ñu toog si Faba Fadam gën a Ama bunu yapıyor. Biz yapamadık. Bakmak için bir adam Thank you.

Baye Ndiaye nii loolu imam Seydou Amady dina la ko xamal xam ak teggin la rek waaye xam na ne réewum ndox yoo xam ne ne tey bii am nga ci responsabilité bu rëy te fu nekk yaa ngi dugal jàppe dugal sa xol ak sa xel ci liggéey bi kon boole ñi nga xam ne dañoo yaakaar ne bëri ngaa wax bu daan jël ay dama dama la ku bëri sutura la woon it ku daan dundal guddi jàmbur yi la woon mos na noppalu ba dee di kafa tey sëñ Daara Ousmane Ndiaye kenn du moom suñ waxee loolu waxi Tatagal rek la waaye xam nañ ne Baye mooy sëriñ waaye loolu dañ ko wax rek ndax da bàyyi moo ko waaye sëñ daara fi bàyyee ko tegoon na tànkam ci ay tànkam te alquran daf ñoo jàngal ne ñi gëm gëm yàlla bu yées gëmi bàyyi yàlla dañ leen yéegee ci maqaama bàyyi ñi gëm gëmi yàlla yi yées gëmi bàyyi yàlla dana leen xéegal ci maqaama bàyyi kon ñu ngi sant ñëpp te ñu ngi gërëm ñëpp waa njaayeen kàddu mbokk yi njaboot sëñ Ousmane Ndiaye. mbokkoo ci yàlla gi gën a fort te mooy mboolem taalibe yi. mbokkoo ci yàlla gi gën a fort te mooy mboolem taalibe yi. doomi pays baa ngi dem tey. doomi pays baa ngi nii dem tey. koo xam ne mos a jaxase ci lépp lu fi bàyyi bàyyi woon dara. koo xam ne mos a jaxase ci lépp lu fi bàyyi bàyyi woon dara. yu bees yi xew. yu bees yi xew tey. ku mos a ciblé. ku ko mos a sib la. te mos a ragal ku ko ci sikk. te mos a ragal ku ko ci sikk. moom daal bàyyi la woon ci zahir bàyyi la woon ci baatin. digganteem ak Serigne Aliou Cissé al Khalifa réeréewuñu ko. digganteem ak Serigne Aliou Cissé al Khalifa réeréewuñu ko. gis naa ay mbind yu ñu ko gërëm yu ñu ko jox ay jox jox ijaaza jox ko ay ñaan yu fort. gis na ay mbind yu ñu ko gërëm. jox ko ci ay ñaan. jox ko ci ay ñaan yu fort ak lijaaza. imaam moo ko ëpp xam-xam ci loolu. ku àndoon ànd bu rafet ak El Hadj Abdoulaye Al Khalifa. ku àndoon ànd bu rafet ak El Hadj Abdoulaye Al Khalifa la woon. ak Khalifa si eh, Ahmad Dam ak Khalifa bii fi nekk tey yal na ko fi yàlla yàggal te wóor ko. mu rafetaloon kóllëreem la ak Thierno Sane Deme radiyallaahu anhu ndax moo doon bécc yaayam mujj gi. waaye ko amoon kóllëre la ak imam Xasan al imaamul lakk waroon mu ngi ñuy toog kon yéen taalibe yi yéen mbokk yi dina ñëpp ànd ak dal te xam ne bàyyi jël na damm damm bi ba pare imam mii teew dëggal loolu ak njabootu bàyyi jii fi mu ngi nuyoo mu ngi sant mu ngi gërëm ñëpp te mu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamina ñun nag ay taalibe lañ bépp taxawaay bu ñu taxawee woon taalibe yi ñun suñ yéene nañ nekkee woon ak moom ci ndigalu xalifa bi ak ci feddali imam mii ak ci feddali imam mii lépp loo xam ne nii war na ci kër gi mu ngi ci ci ne imaam joxal na ko ci ndigalu xalifa lépp loo xam ne war nañu rek ñu ci mën ñu ci jéem ci ni ko sëriñ bi bëggee ñu ngi sant soppe soppe Cheikh Ibrahim Alaaji Barham bu Cheikh Serigne Baye radiyallahu anhu ñi fi teew ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam ne mu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin moom day naa mu sikk ne mu ngi ci aljana bi gën a kawe tey suñ imam bii wax na ko ne mu ngi koy dégg ci rajo bi xaatiram ñoom ñaar seen i xaafis dëppoo. dafay wax sax moom Cheikh Ibrahima ne sëñ Daara Ousmane Ndiaye bii ci aljana la jógee jëm ca aljana. aljana jooju mooy aljana ji bàyyi wax ne ku ko mos fii doo namm aljana ji ñëwagul. mooy aljana xam yàlla. mu boole ko charia bu wér di ko doxal. léegi nag ay cëram taxaw na. جفم جيحنا ويلا يلا مدن جفتي موم تبين عن موم فقو شوق سجن جاك ويجي لينا إمام وحنا لكم جم موكو دقل في مونيك لينا عبد الرب يقى يقى يقى يقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نوينان